moo ñàkk Ndeye Ismaïla non non contre am na ku nekk ci ginnaaw bi day paas day paas waaw merci beaucoup merci di baax na merci di soxla nañu ko non day paas day paas am yooyu ay taa bi nag jug leen jug leen bàyyi leen ay taa machine instant bii neex na. non kii dafa mën a joxe carreau problème mooy carreau yi joxe day tax zone yi ragal quoi. bu laa jox. kii am na anglais moo nekkoon meilleur anglais. merci beaucoup.

groupe euh, pour tenir sa place aux côtés de Khalilou Koulibaly en défense centrale euh, Nampalys avec Sabaly. Nampalys qui de latéral droit euh, qui est devant. Et sur ce plan en place long ballon à destination de Sabaly Sabaly de la tête n'arrive pas à le faire c'était très bien défendu on a une faute garantie dëkk. garantie dëkk boobu. garantie dëkk. maanaam da ngeen mën a fekk. mu ngi ci kaw. mais boo xam ne parce que boo euh, xam ne. waaw. qui a toujours la confiance d'un réussir tattari sun gaba bai karam ne sun gaba bai karam kuma ne Sabaly Sabaly avec Nampalys Mendy activement les Qataris sont bien en place en ce début de match c'est bon Sénégalais et le verrou comme Ismaël Ah ouais mais canal bi xanaa ko. waaw teguñu ko waaw. waaw dañu teg machine bi. gars yi canal yi kii machine bi moo koy. mais bii tegu ko. ah xam nga bii fii. non non. ñëpp barke alxuraan karim. yaa sagal Sénégal yaa fi ne. barke alxuraan ñoom ñëpp dañ doon soxla pour yàq. ñun amuñ kenn bu liggéey ci mat Sénégal bi yow la ñoon demal vaar di liggéey. man képp ku may dinga dama lay bàyyi ba nga dinga ma def fàttali la gën a la wallaahi. barke alxuraan yàlla tas yaakaar. yàlla du tas seen yaakaar kanam taaliba seen Fall la loolu la ma sénégalais yi sasoon comme sénégalais yi. libéré nga leen barke alxuraan karim. amul la neex. toogal seraan match karim le Messi. le roi du ballon Karamba mooy Sadio Mané wala daa war a remplacer Sadio Mané wala Karamba ab zéer la wala lim doon mu ngi noonu won na leen won na leen ko tubaab xamul football bu ci kaay la xam. bal basket basket. xam naa génn tuuri noppale ko. waaw waaw léegi maa ngi génn tuuri dem dallu xaar ma ci di jeex. et nga ne man da maa sagal. man man man du soir bi maa ko moom barki Serigne Saliou. delloo naa lépp yàlla suñu borom lépp yàlla laa ko delloo lépp yàlla. Karamba jël na lépp delloo ko yàlla suñu borom. ñun mënuñu dara yàlla moo ñuy saxal ay xale lañ réew mi dañ ñoo war a jàppale waruñu ñoo xeex buñ ñu xeex ñun am nañu yàlla dénk buñ xeex dinañ yàlla dénk man manuma yàlla mu ma dénk néew damaa uti. yàlla moo ma dénk nga ne yàlla waru ko dénk bu yàggee da ngay soxore yàlla loolu baaxul sénégalais yi laay waxal di ko jàngale ñëpp yéen ñi nga taxaw pour yàqal karamba yéen ñi nga taxaw pour yàqal karamba yéen a tax ma def lii jamais var tous. yéen. wallaahi jamais var.